yàlla yokk wéram yokk ay fanam ba mu defaat fi quatre-vingt-dix ans ak njabootuk Seydi Hadji Malick gépp gépp gépp baarakallahu alhamda njabootuk Serigne Babacar Sy njabootuk Mawlaay Cheikh Hadji Abdou Aziz njabootu Tijaan yi yëpp yëpp rek ci gàttal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar dañuy bëri ko guddal nu yooyu ndaxte comme dañuy njaxtu ni temps bi léeg-léeg ñu wax ñu dafa gàtt ak yooyu bu ñu guddalee nu yooyu ñuy bañ consommer le maximum possible préserver ko temps bi pour mën ko def ci émission bi baarakallahu alhamda bu ko defee euh, di nuyu njabootuk euh, maam borom tubaa waa Touba nuyu njabootuk euh, n'est-ce pas Cheikh Omar Fouti sunuy sëriñ nuyu say njabootuk Seydina Limaamu Laay nuyu njabootuk Abdou Khadir Jeylaan ñëpp bu ko defee ñooñu boo tuddee ñooñu rek bàyyi woo kenn ñëpp des ñëpp a ngi ci biir bu ko defee ñu def comme ni ñu ko daan def tay la alxamis incha allahu ci alkawnu ñu dellu siwaat ak yéen ci fi ñu toll woon ci buntu cheytaani di ca ànd ak ni ñu ci daan ànd toujours sunu frère xaaj njaga njaga ñu ngi lay nuyu di la ziar di la nuyu alaaji di am mbégte bu baax a baax di la ziara di kontaan bu baax a baax ci euh, toogandoo ak yow euh, macha allahu taala waaye maa ngi lay tooñ léegi nag bi ñuy commencé ma ne xam naa ni <coughs> ma ne xam naa ni alaaji dafa mel ni sama impagne daf fee nekk parce que fan jamono bi moom euh, sanse yi soxor na mhm. te itam ni nga ma daan joxe reer gi nga ma jox reer waaw waaw waaw loolu moom xam nga boo ne ma ku ni ma jàkk moom xam ni reer yi may reer nii jamono yi. boo fekkee ñu reer soppiku na am na coppiku. xam nga dama ne dama dama ne ñoom ñoom Pape Ndiaye ak ñoom madame si mhm. dama ne su su gont bu ñëwee li mu njëkk def li mu njëkk a lijjanti. Mhm. mooy ndax sama impaañ reer na wala reerul. waaw ah, kay dañu tey da koy appelé fi ñu ko ala allo allo. waaw ah, kay euh, reer nga wala reeragoo. mu ngi noonu. <laughs> naa gis mu def ko xam naa ni. voilà xam naa ne reer yi moom fi mi ngi ci. mi ngi nii tout tout près pour l'instant moom mi ngi noonu sant yàlla bu baax a baax a baax. bu ko defee des na yeneen neuf soxna yu ñu war a jëlaat. ndéem waay instant huit muy neuf ah waaw. da nga ci doon huit. ah waaw mais yow bu ma bu ma kiiyee rek. xanaa professeur professeur laa gis làmbal ko dara ñu ko lijjantil ma benn xaddis léegi bu ma permettre ma takk ñeenti euh, juróom-ñeenti soxna léegi ñu laa xaritil ma ko gars yi ñoom. am nañu xam kon dañu naan mas na sulaasa wa rubaa. wa rubaa bu ko defee ma daal di am neuf ala kulli haal. gën a dina xam naa daal dina xam naa professeur. Euh, moom xam naa dina lijjanti loo xam naa boo ma di ko jox lu lu duun nag ah tey kuñ laaxatoo moom bu ma ko bokkalee ay ay ay ay ñaari junni ñaari junni tuuti comme daal samay daal damaa bëgg a takk juróom-ñeent léegi nag damaa bëgg xawma fu may jaar lijjantil ma benn hadis boo xam ni dana ma permettre ma mën a takk juróom-ñeent <laughs> gaa yi xam-xam rek lañ bari dana ko génne laay la macha allah kon nag mi ngi loolu xam naa ni di am mbégte bu baax a baax ñu dugg ci waxtaan wi. Eh, xam nga ñu ngi woon ci buntu Seytaane waaye ñu nuyu baax nag suñu professeur moom mi nga xam mooy suñu directeur di jiite desk bi eh, desk bi macha allah. desk réalisé bi ci kër gi. Eh, ci suba maa ngi koy wax di ko gërëm moom Cheikh Mati Diagne ndax kilifa la gu lawet gu baax lool macha allah wàcc wàcce boppam woyof lool macha allah taala ñu ñaanal ko yàlla yàlla yàlla tëbb ko wér te yàlla jàppale ko bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ndax euh, sàmm maamam suñu Babacar Sy dafa noonu sàmm mm. euh, ay gàtt ni yomb na ndax benn benn yet a leen di sàmm waaye ay nit nag dañoo defee sàmm ndax téeméeri yet moo leen di sàmm moo tax ku nekk sa melokaan ak sa jukko di ci profité di remercier euh, waa waxtaan bi mu def bërki démb ci kër góor gi bi Bili Pay mm-hmm. moom professeur ci euh, association boobu nu ñu tuddati mhm. baarakallahu muy waxtaan bu am solo trop di ci pas di ñu profité nag di góor gi bu li pay ak euh, jeunesse tijane bi yëpp mhm. ak ñi nga xam ne ñi ngi dëkkee yëpp ci zone boobu baarakallahu ñoom ñëpp participé keroog ci débat bi amoon foofu am na solo trop trop trop trop ñi ngi nuyu ñëpp ñi ngi ziar ñëpp ñi ci am mbégte macha allah macha allah ñu nekkoon nag ci buntu seytaane alaaji nag waxtaan waxtaanoon nga ci waxtaan defoon nga waxtaan sax ci wàllu musique mm-hmm. eh, waaye am ay mbokk yoo xam ni mm-hmm. dañu woote waat di mm-hmm. laaj ni bëggoon nañu daal nga ñëwaat ci gën ci indi leeral donte xëy defoon nga ci waxtaan waaye bëgg nañ mu gën a mu gën a leer ci seen bopp parce que eh, musique tamit mi ngi am lu muy def am na ñoo xam ni musique am na fu mu leen di yóbbu waaw da di yóbbu feneen eh, léegi nag bëgg nañ ci def waxtaan xam ba xam euh, moom musique fan la jógee musique yi tamit euh, lan lay def maanaam seytaane ban wàll la ci am ci wàllu musique ak kan moo ko créé nit yee ko créé wala ñen ñoo ko créé euh, loolu daal la bëggoon ñu def ci waxtaan insha allahu taala insha allahu xaaj njaga xam naa dama ciy profité nuyu nag ñaari téléspectateur u alkawn yu ko sopp lool bég ci lool te sori lool fa ñu dëkk ndeysaan moo tax may bëgg di leen faral di nuyu léeg-léeg muy ku ñuy wax Mortara Ngalaan mm-hmm. Mortala Ngalaan mm-hmm. ak Souleymane Ndaw Souleymane Ndaw ca ñaaxar defe naa ni su ma jóbbul côté yooyu lañ dëkk mm-hmm. ñu euh, ñi ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen bëgg di leen bàyyi xel nu Fall ca Fuuta moom envoyé ñoom ñoom moom lañ gis wax ko seen cofale ak seen mbégte ci ci alkawnu comme ni ko ay milliers de personnes di ko defee également ñoom mm-hmm. tam ñu ngi leen di nuyu di baax di leen bëggee bu baax a baax baarakallah ak sa doom di nekk Angleterre sama doom ji ca Angleterre waaw soxna soxna Fatou Kiné soxna Fatou Kiné loolu waaye nag moom ma santam Samb la sant aa soxna Fatou Kiné waaw waaw waaw mais léegi nee na fu mu teg ci Samb ah macha allah kon nag mi ngi noonu loolu kon moom tawféex la <laughs> baarakallahu léegi xaaj njaga euh, musique mm-hmm. waaw particularité bi nga xam ni parce que seytaane mm-hmm. comme si seytaane lañ nekkoon moo tax

dafay fexe ba woor nga weddi diine islaam nga weddi alquran nga weddi saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga weddi yàlla ci boppam xam nga kon léegi egsi bu ñëpp weddee yàlla ni yàlla ci boppam existé wu léegi nag mu ne waaye jikko yi ak valeur yi ngeen am ba léegi ak nite la mu fexe nag ñu dindi ko ba ñu ñu yemale suñu bopp ak golo yi comme ni nga koy dégg ñu ne ñun ñi ay golo la ñu rek yu góorgóorlu ba mel ni ñu mel mm-hmm. des ñun gestion des macaques ou des babouins avec ou sans queue il aura mieux évolué évoluer n'est nekk insulte à la civilisation humaine mhm. donc à la civilisation humaine donc moi tax mu utiliser arme yëpp mais de dafa n'est am lu puissant mhm. lu am doole ci doomu adama parce que fay atteindre partie yi nga xamni mom munu fa egg mom iblis ci nit mhm.

musique boobu parce que nekkul ni moom seytaane moo ko inventé mhm. créé wu ko ah moom créé wu ko déedéet kon fan la jógee musique sàbbaal malaaka yi sàbbaal yi ñuy sàbbaal yàlla mhm. boo demoon ba dégg mouvement yi ñuy def di décrire bu ñuy tawaaf parce que ñoom seen sàbbaal mhm. du dañuy taxaw naan subhanallah dedet. ñoom subhanallah dañ koy parcourir maanaam dañ koy jëf d'accord xam nga muuma yow booy wax bonan naan suba damay dem marché jënd. du la dégg mën ngaa bañ a yëngal benn cër. Mhm. nga wax ko suba damay dem marché jënd nangam. Mhm. muuma nak mom da koy jëf maanaam danaan nii day def ay mouvement wane ni suba damay dem marché jëndi nangam. Mhm. gis nga mom ci ay action la koy defee. ay gestes lay def ay gestes lay def. loolu mooy différence communication bi am entre nit ak malaaka. malaaka xana bu ñëwee ci di wax ak mom lay utiliser peut-être la parole. mais ñoom seen communication du ay parole jëf la ay fraction la ay leer la ay ay rayonnement ay laalante la moo tax man ñoo jàng téeméeri milliards yi euh, al alxuraan ci benn infraction de seconde allahu akbar da nga defee ne yàlla buy bu naan jibril dawal gaaw abu jaahil tufli bi mu jëm tufli jëmee ko ci Seydina Mohamed bu mu ko laal temps boobu dafay toog di ko wax temps boobu naan jibril dawal gaaw bala moo kon mooy bala moo egsi bala bala bala mu daan daa daa daa rek bala mu ko tudd egsi <laughs> agsi na mais loolu moo gën a gaaw milliard jëm de milliard jëm de seconde c'est inimaginable maanaam mën nañ ci wax lu baree baree bare ñoom noonu seen communication loolu la sàbbaal yi ñuy sàbbaal yàlla nag dañ koy def ci tawaaf wa taral malaayikata taafiina min hawlil arshi loolu ci sàbbaal yàlla léegi nag buñ koy def day générer benn son son bu extraordinaire gis naa ci kaw ci kaw euh,

wa anna lamasna samaa mhm. fa wajadnaha mulihat harashan shadidan wa shuuban ndeysaan donc ñoom bi ñu demee ba ci asamaan di déglu malaaka yi ci li ñuy dégg son yu extraordinaire yooyu ñoom jinne yi mhm. ñu ñëw indi ko ba ko exprimer ci ay instrument mhm. ñu bëgg utiliser ay instrument pour expliquer pour exprimer son yooyu man ci dund seytaan yi nag léegi mu jël seytaan yi jël son bi xam ne son bi

mooy buur bi sant woon ak yonent yàlla noox moo njëkk a inventé instrument yuy tëgg ay ndënd mu nekk benn son bu neex ci nopp nit ñi ndëng ndëng di ko tëgg di tourné ci seen yàlla yi ci seen xërëm yi di ko di leen feccal bu seen feet yooyu amee muy mhm. xërëm yooyu mu lay wax naan euh, euh, la tazaruna bu leen wàcc mukk mhm. alitukum seen yàlla yi mhm. léegi bu ñu daan def seen feet yooyu dañ daan tëgg ay ndënd di fecc di naan di mandi di fecc donc ñi njëkk a def instrument musical mooy darmasil mhm. darmasil moomu moom laa la wax ni la jiijit moo ko jur jiijit mhm. taw tawbiil moo ko jur mhm. tawbiil xaabil moo ko jur waaye darmasil moomu moo jur faw faw fawmiil moo jur taxardos xam nga noox dafa fekk ñetti buur fekk na fa darmasil fawmiil taxardos parce que dafa yàgg nekkul ni benn buur rek la la existé jamono teel jamono parce que moom du nekk naag dal ma si sax naag ñoom junni at waaw yu ngi dund junni at ak ñaar téeméeri at ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn fukk ginnaaw toofaan nga soixante ans la dund la dundaat bi mu amee la ko yàlla soo ko yónni am ñu wax quatre cents ans gudd na fan de bi mu amee la Jibril soog a dikk ni ko yàlla sa borom yónni na la moo tax da naan nuux dafa tardé dem ba am deux cents ans soog a nekk yonent waaye mu def fa junni at ginaaw ans. 60 ans motax mu 1200 ans 1260 ans. mom lu dund. y euh, mu fekk fa donc Darmasil ba Darmasil Il faw mil ñew ba Il ñew ci ans. la y a am. ci la amé ci la Il ñom ñooñu nak dañ def musique bobu Il y donc mom mo créer musique en tant que ñun être humain. ci moom mooy ki nga xam ñoo njëkk a créé ay ndënd lu jiitu aadama ba foofu imaginer wuñu créé wuñu inventé wuñu ay ndënd di ko tëgg mhm. mu nekk ñuy tëgg naan rëng rëng mu nekk benn affaire bu génne benn son bu leen di yéem en tout cas di leen impressionné mhm. seytaane di ca jaar di mën a atteindre objectif mais nag musique mag na loolu ndax jinne yi fi doon dund avant adama xamoon nañ musique avant avant aadama di ñu avant aadama di exister ñoom xamoon nañu musique xamoon na fi xamoon nañu musique dañ daan musique ok parce que musique molle, leen mag. Mhm. lu lu lu défle, yi def la du lu ñu inventé. la dëgg la. Mhm. musique la parole dañ koy tuddee musique mais du musique. Mhm. musique mooy instrument. ñu bari dañuy def ne dañ Why waaw way nag léeg ma gis ko ni ma waaw xanaa kon way yi xanaa kon ñun yi def non la parole mot bat nit du musique lu neex la mais du moom mooy musique parce que moom bat nit le naturel. dafa jógee ci ruux dafa jógee ci nafs seytaane mënu ko rax mhm. waaye instrument mooy nga jël guitare mhm. clavier flûte et cetera xalam mhm. dans la grotte de Chauvet benn grotte la bu nekk soit ñi dañuy Allemagne wala France la grotte de Chauvet <coughs> dañ fa découvrir benn flûte bu am trente cinq mille ans yaxutan lañ ko defaree yaxutan moom lañ defaree flûte boobu Philippe Ba ñu ngi ko fekk ci benn grotte boo xam ne benn xeer moo ko fattoon pendant des milliers d'années ba benn nous avons vu fichier bi xam nga xéer day màgg comme waa ashabul kahfi na mu demee won. bañ ko tabaxé xéer wi mo mag, fichier bi la tabaxone mu am mu bayyi, ñu gis ni fi kat luñu Là, la nekété. Motax ka ca ba yam ko loolu la mu la ci alal fi denc motax mu toj ko tabax ba mu mu dof daw ndax allahu akbar kahfi après 300 ans ak 9 ans yoy la grotte chevet bon, non la il y a quelques années ci viens découvrir une flûte bu fa dessins yu frasques en tout cas 35 xam ans 35 000 ans c'est bien avant Adam. Hum. mais flûte vraie flûte avec des trous ak tout nga xam a dañ ko mais taille bi ngay xam ni

s'il utiliser ko seytaane utiliser mu nekk ben instrument de xam daf koy pour mën atteindre ci nit egg mhm. mais xam musique son règle, de te la c'est son la donc son nan le mener, def jeexit ci nit impact mer wala wala mu kontaan wala mu am wala mu excité xam nga musique la koy def mhm. nit musique excité wu di dal di di xaqataay mhm. wala mu musique oh nelaw mhm. musique bi nelawal ko wala mu musique xol bi mer bi mu amoon mu reposé mu am parce que son boobu dafa am impact ci ruux nit te nit léppam ruux bi la lépp nit ruux la la noyau bi mooy épicentre bi mooy mémoire bi xam nga ordinateur bi wala télévision bi wala téléphone bi en tout cas ak loo ci mën a def lépp ca mémoire ba rek la uh-huh. mooy mooy denc son yi uh-huh. mooy denc image yi mooy tax nga am son mooy tax téléphone biy tàkk mooy tax mooy def lépp dëgg la baarakallahu alhamdu uh-huh. moo tax lépp di am son yooyu ruux boobu boo ko déformé nit ki déformé wu soppee ko boo fexe ba mën a boo bëggee yàq doom nit dëgg-dëgg mhm. da ngay fexe ba déformer ruux da ngay fexe ba épouvanter son âme avec des informations négatives mhm. yoo xamante ni si ce n'est pas des informations mais xam ne c'est des paroles mhm. mais c'est des ondes barakallahu bu ko defee loolu mooy doon li nga xamante ni si moom la seytaane utiliser xam nga ah, macha allah. waaw dafa mel ni sa sa micro dafa mel ni xaw kii. Mhm. waaw mel ni sa micro xaar xaar tuuti mu xool waaw xaar mu xoolal euh, euh, sa micro ndax li ngay wax ni dëgg-dëgg am na solo lool macha allahu taala euh, te nit ñi war nañ ko mën a jëriñoo mi ngi wax ci musique fi mu jógee fi mu cosaanoo wax na léegi moom professeur ni musique malaaka yi. son bi nga xam ne moom la ñuy sàbbaale suñu borom euh, mooy li nga xam ne moom la moom la gaay di euh, moom la moom la moom la jinne yi indi fa tabaarakallaahu kon euh, dañ ci ñëw léegi mu gën a yaatu fan la jóge ak la lay def ci ci ci doomu aadama bi macha allah ñu bàyyi la nga compte professeur fi nga nekkoon am na solo ñu ngi jaajëfal euh, Babacar Babacar euh, macha allah ñu ngi koy ziar bu baax ñu ngi koy déggee les techniciens yi moom du ñu sonn du ñu tàyyi son jàmbaar lañu. Mhm. tout le temps ñu ngi jéem a chercher pour que bi gën a baax image bi gën a neex pour ñuy seetaan. Mhm. mën a gis ci seen bopp lu am solo la. Mhm. barakallahu. voilà xam nga. son boobu dafa bokk donc ci combat iblis li yeb ben parti bu ndaw la ci iblis façon xex yi muy xeex yëpp xam nga fan yeb ñu ci wax ci yenen buntu yi nga xam ne duggee na ko dina ko xeexee waaw dina ko xam ci ay métaphysique la mo xam ci ay métaphore la mo xam philosophie la mo xam c'est quelque chose de biologique de pathologique moi xam euh, n'est-ce pas li nga xamanteni ci ici, ci ci ay c'est social et tout tout tout tout mm-hmm. mais ruh bi mooy bi nga xam ni bu ko réussiree dootul sonn ci yi ci des parce que nit day jikkoom mooy yàqu nit mooy soppeeku mooy déformé wu dootul am jikko bu baax dootul mën a nite te ci loolu ca ko mën a ca ruux nga la ko mën a réussir mooy boo fexee ba ordinateur bi nga saboté euh, kii puce bi mhm. li nga xamante ni si mooy puce bi nga saboté ko yàqate ko mhm. lépp ay yàqu dara baaxatul image yi dootul baax son bi dootul baax dootul mën a nekkati ordinateur wala sax faf lootul tàkk mhm.

instrument bi moo koy créer mais lepp onde la parce que ñi tok nan "La ilaha illallah la ilaha illallah c'est des ondes mm-hmm. mais onde la ilaha illallah dafa ëmb leeruk la ilaha illallah mm-hmm. té ñun ñëpp dañuy utiliser ben fréquence 432 hertz mm-hmm. kàddu nit sabu picc xobu garab cellule yaram de fay émettre ben ben ben vibration de 432 Hz donc euh, les les Hz moi, mooy le mesurer son wala lumière bu la le nombre d'oscillations par unité de temps. Mhm. c'est-à-dire boo gisee ñu par exemple euh, euh, dafa nekk ci euh, gamma ou la wala wala wala yooyu. moi, mhm. mooy intensité wu. Mhm. intensité wu. Euh, oscillation ou onde bi. de mhm. la les fréquences et les longueurs d'onde. Mhm. les fréquences c'est le nombre d'oscillations par unité de temps. Mhm. les longueurs d'onde c'est la longueur de l'onde la dilatation de l'onde. mon Je tax souvent réglisse vous bu un objet par exemple ben ben ambulance ak ak ak ni sirène bi def. sirène bi da gis ni dafay gaaw. bi day gaw mhm. ta ta ta ta day gaw day gaw mais bu la rombé da ngay gis ni légui tintin bi day yéx yéx yeex waaw bu la wanee ginnaaw. voilà bu la wanee kanam di dem. di ñëw di ñëw day gaw mais bu la wanee ginnaaw di dem. da gis day yéx day day day ni mi ñëwee du bokk ak ni mu doon ñëwee. bu mu la wanee kanam. exactement parce que tout simplement euh lorsque benn source sonore buy approché wu sa longueur d'onde augmente et sa, sa fréquence augmente et sa longueur d'onde diminue. D'accord, d'accord. Mais quand elle s'éloigne de nous, maintenant c'est le contraire. C'est sa longueur d'onde qui diminue et sa fréquence augmente. Uh-huh. sa, sa, fréquence diminue et sa longueur d'onde augmente. Je tax léegi que teint bi day yeex mais intensité bi day Madame, la forêt bi day mais la dilatation ou l'onde est de yokk. Uh-huh. moo ñu donc c'est juste des ondes hein, des oscillations des perturbations des molécules dans l'espace. Uh-huh. parce que l'onde ce moo créer c'est c'est des illusions. Mhm. xam nga c'est compliqué dañuy dund ci benn univers boo xam lépp ay illusions la. Mhm. dara réel dara du dëgg tout est faux. ah bon oui c'est des effets placebo. mais loolu dina naka di dégg alaaji. effectivement. parce que ki mel ni man. Mhm. Euh, pour mu dégg loolu day xaw a jafe ci moom. ala kulli xaal waaye xam nga Sénégalais heureusement gis na ni remarqué na ni xam lu tax ma ñemee. dama gis ni ndekete nit ñi ay borom xam-xam lañ. waaw ñi gëssu dañuy gëssu moo tax ma ne ko ñii ñeme naa wax ak ñoom dëgg la waaye am na yoo bu jëkkoon du ma ko ñeme wax ñeme koy est ce du ma nii lañ daan la ñu yenn nitu yàlla yi mhm. wala sax ñu wax ay yonent wala ñu wax ko nit bu ma sa wax xëy lu nit comprendre dañ la dof nga ah, waaw loolu waaw kii njëkk wax ni la terre est ronde ko dof ka rey ko dagg bopp bi mhm. yonent yi dañu leen ay dof ngeen mhm. nitu yi leen ay dof ngeen ah, ala kulli ah, parce que malheureusement dañ doon wax peut être duñ ko duñ ko ñi ngay waxal dañuy da ngay jëmee wax. loolu mooy affaire bi macha allah. <laughs> macha allah léegi nag. Eh, kon yaa ngi ci musique ak ni ko seytaane di utiliser. Mhm. parce que sax am na benn polémique bu ci xaw a am. Mhm. mooy ndax musique dafa xaraam. Mhm. wala xaraamul. war nañ ko déglu. walla waruñu ko déglu am na koo xam ne xëy na eh, musique moo koy dundal. te du ko te xëy na boo ne ko doo jullit. du ko mën a dégg am na ko xam jullit la moom sax. mais mu ngi musique. waaw man foofu damay rangé wu ci waxu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Ba xawma musique yu ñu xool moom li mu wax araam na aramul mais est-ce que yuna, est-ce que yiw est-ce que yuna, na moom loolu wax donc man tamit je m'intéresse pas vraiment ci ay affaire u araam ak dagan yooyu mhm. débat boobu moom nañ ko bàyyee yenn gars yi nga xamante ni si ñu nekk ca waaw ñu ni yooyu moo leen yitteel mhm. araam na araamul araam na aram, na c'est pas mes objectifs man je dis juste jàngal li nga xam ne ci nekk ak réaction yi nga xamné ne am ak limi provoquer ci nit le pourquoi et le comment mm-hmm. lo gis ci adina amna lu bax amna lu bon mm-hmm. lo gis rek amna lu bax amna lu bon dëgg la même sangara amna lu bax waaw oh. ah, parce que yalla daf ni njariñ la mm-hmm. lor wo moo ëpp njariñ la kon ça veut dire que amna njariñ waaw am na ah, xatam di ko ñu waaw kay waaw ah, da ko leeral ñu gën ubbee ñu yow yalla yow suñu borom ubbee ñu ci ci sàngara ndax bo né amna amna njariñ waaw am na lor. waaw il faut nga nga ubbee xam nga njariñ la lor yi moo ëpp njariñ. waaw soo su ma ko waxee. mooy kon lii de li ciy lor moo ëpp li ciy jariñ. bàyyi ko gën ko mooy kon am na lu ciy jariñ mais de toute façon am am na lu ciy jariñ. Mm-hmm. ce qui est important c'est na lu ciy mm-hmm. ne nag bay boo 3 pour cent la li ci des lépp loraange la mais am 3 pour cent yoo xam ne quand même njariñ la. am na njariñ pour wax ni lépp am na lu baax am na lu négatif am na lu positif moo tax moo tax nit ñuy way. Mm-hmm. yàlla dafa bëgg bu ñu koy jaamu ñu ko ñu mel musique en quelque sorte ci gémmiñ mais ci làmmiñ du musique instrument mm. comme ni ma koy chaque jour mais musique moom mooy la totalité des choses mooy lépp lépp musique la lépp onde la kiy jàng alxuraan bu la neexee nga tuddee ko musique mm. mais du musique instrument encore une fois de plus mm. xam nga euh, boo nee musique dañ naan la ah ñiy way kon dañuy musique non musique ñu mais mën nga ko dugal tur parce que amuloo beneen terme boo koy utiliser peut-être mm-hmm. les chants c'est juste ça parce que da ngay wax muy neex mu voix en ben son mm-hmm. bu neex donc buy jàng alcorane da ngay neexal ki nodd ci jàkka ja da koy neexal ki ñi tok di wazifa dañ koy neexal ñëpp dañ koy musique dañ koy def son bu neex ñu koy àndandoo allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyat donc ça walay walay wal yaqutati mutahaqiqati ha'itati bi markazi alfumi wal mani ah ça c'est extraordinaire muy jëne son muy jëne son bu neex voilà mais bii dafa am ay énergie positive ba pare am leer moo tax bu koy déglu parce que amul lor parce que 432 hertz la parce que nit 432 hertz lay émettre. mais alaaj baat bi neex na de. waaw oui moo ci dugal fii de moo fi yëkkatee fii gars génne ma ñu ma jël jaaral ni de sa baat bu naqare bi sax yëkkati ni mu xam naa ne baat bi moom vraiment non xam nga yooyu dut kenn la ñu koy la ñuy kii lañ koy euh, ci dut kenn laa koy kii forêt non non fa laa koy fa fa fa laa koy. fa fa koy répété fa koy entraîné. <laughs> fa laa ko plagier fa laa ko jëlee mom la rek voilà fa laa répéter quoi mom mom boko ko ci yoy rek. walaay da ngay ngeen daal walaay ndeysaan ndeysaan ma ngoog ndeysaan mom foofu lañ ko jëlee. baarakallahu bu ko défé les 400 le problème se trouve entre là 432 heads à 440 heads ak quatre cent quarante hertz. Mhm. benn bis des mooy instrument. Mhm. ak lu dul instrument. Mhm. benn bis topp li seytaane dugg ak li seytaane raxu ah. xam nga dafa am benn benn artiste peintre danois mhm. mu wax benn wax boo xam ni benn citation bu ma neex waay waaye ba léegi dégguma ko ma ko mën a firi mhm. mu l'essence originale de la couleur est une résonance de rêve mhm. il parle des couleurs il parle de la musique il parle de la lumière L'essence originale de la couleur est une résonance de rêve, mhm. une lumière mhm. devenue musique. Ce que je citez, c'est des ondes. Mhm. les Les couleurs, c'est des ondes. Les couleurs n'existent pas. Couleur amoul. Verte, jaune, rouge, amoul. Amoul. Quand le am? couleur. Objet couleur dinañ ci ñëw njaga loolu dina ndax xali dégg de alaaj waaw sa sa lii ma sol jaunul li nga sol vertul mhm. dinañ ci ñëw mhm. c'est juste des ondes ay ondes ñoo provoquer couleur yi maanaam yére bi ci boppam amul couleur onde bi ci dal moo jaune ah. maanaam entité moléculaire bi ko composé mhm. jaune mënu ko traversé daf koy daf koy rebondir daf ciy rebondir day ricochet wu dal dellu mu émettre jaune mais moom jaune mais moom jaune moom jaune dina ñëw ci illusion optique

moo tolloog li nafsi mhm. li nafsi sa bakkan gis nga dafa tolloog sa bakkan li nafsi 432 est-ce que nit li son bi muy émettre 432 la moo tax boo indee benn musique de 432 hertz mhm. dafay apaiser nit ki est-ce que boo jëlee instrument mhm. nga nga nga accordé ko à 432 hertz jouer ci benn son son boobu bu ko nit ki déggee dafay sentir benn sakina parce que day tolloog bakkanam dafa tolloog bakkanam moo tax li nafsi 432 léegi nag Iblis seytaane xam na ko ak ñi mu àndal. mu ne kon nañu nañu yóbbu musique bi accordé ko à 440 Hz. 440 Hz, hertz dafay détruire. dafay ëpp day déstabiliser day agiter say cellules. moo tax ñiy déglu musique moderne wala musique techno. boo leen dee seetlu day gis ne du ñu dal d' abord. dañuy mañax mañax rek. dañuy agité wu tout le temps dañuy stresser tout le temps. dañuy jaxasoo seen xol day naqari. dootuñu mën a teewlu te waxu yàlla da leen di déranger te bu ñu xam ñoom lu tax boo fa tegee naa leen yàlla alxuraan rek gis dañuy jóge foofu gaaw wax bi daf leen di déranger daf leen di sonal. allahu akbar te xamuñu ni loolu moo leen ko jox parce que seen ruux la ñu chargé ak ay particules ay ay énergie négative yoo xam ne mënul accepter ti mënutul nangu léegi bëggatul li nga xam ne mooy leeru alxuraan wala wax ju jëm ci yàlla. bëggatul dara ci yàlla. bëggatul dara ci loolu. mais kon bu ñuy wax ne kon musique dafay wowal xol. la looloo tax. loolu tax ñu wax kon su kon kon da ngay dëggal ni kon. waaw ñi wax ni musique dafay woowal xol kon yow da nga koy dëggal. ala kulli xaal xam nga baat woowal xol bi xam nga xol bi wowut. waaw ki ñëw xol ku ñu musique daa woowal xol bi boo leen xol da ngay fekk tooy comme sa gudd. <laughs> waaw dëgg day tooy. kon donc loolu métaphore la. Mhm. léegi xol bu wow boobu mooy lan. Ah. parce que xol bi du woppam du wow. te moo xol bi xol bii ci dënn bi. Mhm. boo woon coqet dindi ko. Mhm. teg ko fële jël xolu keneen. moonteel ma ko man xaaji ma mhm. man ñi ma bëggoon laay bëgg li ma bëggoon laay du ma bëgg li waa ji bëgg léegi kon la mën a nan nan ko mën a imaginer loolu <laughs> voilà parce que du moom dëgg dëgg moom ci moom moom mooy mooy réceptacle bi mooy làmp bi nga xam ni dëggi dëggi xol ci moom lay manifesté woo ah. waaye du moom la nag dëgg dëgg dëgg kon ruux gi la ruux gi la ruux mooy moom mooy xol. kon ruux mooy aliment xol ruux mooy fuhaad nafs mooy xalbi. d'accord. maa kazaba fuhaadu maa raa. maa raa wallaahi parce que boo déggee yàlla utiliser terme fuhaad. dafay wax lu dellu ci pas-pas lu sori lay doon ci nit lu xóot loolu ci ruux la waaye bu tuddee xalbu rek li ci ëpp sunu mbon lay wax ak sunu caay-caay ak sunu bëgg bakkan. d'accord fi xulubihim maradun fazaadahum allahu waaw wala marad waaye fii fa fii fuhaadu si maradun doo ko dégg seen fuhaad yi dafa réer dafa dafa dafa dafa dafa alqur dafa sànq doo ko dégg du ko utiliser xol rek lay utiliser toujours xal bu lay wax waaye buy wax fuhaad rek ci yooyu lay dellu comme maa faasa maa kasaba fuhaadu maa raxaa wala yu mel noonu wallaahi moo tax fuhaad mooy ruux xalb mooy xol mais ñoom ñaar nag ñoo daje ci morceau de chair bii di xol li ngay tuddee xol ñoom ñaar ñoo koy pompé benn courant buy jógee ci ruux bi mhm. mooy bës côté bi beneen courant bu jógee ci nafs bi bës côté bi moo tax ñaari pulsion la taf moo tax muy taf taf moo tax xool bi naan pëk pëk ñaari courant yi courant mhm. comme ni nga taalee lampe bi da indi ñaari fil mhm. plus ak moy ñoo dajé ci lampe bi lamp bi tak deug la xol tamit li tax mu ni pëk pek pek pek di pomper mom tamit courant bi bi lay joggé ci ruh bi bi joggé ci nafsi bi ñu ñu dajé ci xol bi. def foofu ay décharge alimenté ko xol bi pek pek pek pek pëk. moom li wax les deux nœuds de contraction des parois du cœur. le cœur a deux nœuds de contraction yo xam c'est le nœud sinusal et le nœud électroventriculaire. ñaari nœuds yooyu ñoom ñoo tax xol bi di pomper nit ki du pompe sang bi pendant 90 ans. allahu akbar muy pompe bu musta taxaw. pendant 90 ans. allahu akbar muy pompe rek te kenn gisul machine bu koy tourner jalla wa ala xam nga yo pompe bo xam da gis ne dafa ben machine bu tourné pompe bi. pompe bi di pompe ndox mi mais bo fayé machine bi rek pompe bi taxaw. na deug la mais léegi xol bi nak mom ben machine moo koy pompe. parce que mom moy alimenter yaram wi yëpp moo tax deret ji circuler di yëg ci yuur gi di wàccaat sa yax yeeg sa yokk yi di nga yëg

parce que roux qui m'a sauvé gagné ici atmosphère bi qui idée fait mon nez d'une une température de 30 degrés une augmentation de température de 30 degrés c'est environnement la roux qui m'a fait nez instant bob descend après vous demeurez température baisse mon sens tu vois descend mon sens date une heure bise d'une une parce que chaleur bob m'a disparu mon roux qui m'a le vivant mon dégueu de gagné ici après m'a perdu un poids presque 30 grammes qui dé ah dina perdre 30 grammes. dina perdre 30 grammes ci poids wala allah kulli haal. ak ni muy diisee moom. 30 grammes 30 grammes c'est insignifiant ça représente pas beaucoup. Mhm. barewul quoi 30 grammes mais day perdre 30 grammes ci poids ki dee. ndeysaan maanaam bu ñu tëddoon fii di bëgg a dee nga peser ko mu nekk 10 kilos net net net. soo ko pesee nga taxaw bu deewee tuuti. Mhm. nga ñëw peser ko mu manqué 30 grammes. allahu akbar. parce que ruux bi moo dem ruux bi la mooy peser poids boobu. <laughs> ci yalla ndeysaan donc Iblis il travaille ci domaine bobu moy musique métaphysique la. Mhm. énergie la force la onde la bo xamné mën na ma permettre ma atteindre xolu nit. kon dinaa ko utiliser man sama bop ma assisté wu Iblis day fréquenter ci diggante onde yi. Mhm. ci oliste relation bi nii fi créé yi am créé mhm. fofu lay tok

fen wu neex fen wu rafet mais fen la quand même moy mentir gentiment le son mu ne le son nekkul lu ay sentiment yo xamni daf leen di fen mhm. mais gentiment recourant le cœur ëmb sa xol d'un drap blanc ci mbalaan mu wex mhm. vous éloignant du bon des vivants sore laak àddina si ñiy dund ñiy dund mooy ñiy dunde yàlla moy ñiy l'air leeru yalla moy mhm. doudou dundé zikr mooy ñiy dundee julli ñiy toog naan allahumma salli astaghfirullah la ilaha illa allah la ilaha illa allah loolu mooy xol yi dund mooy le vivant mooy ñuy dund ñi dundatul zikr dañoo dee fa xasat qulubihim wallahi wallahi moo tax yàlla laaj la loolu ni ma alam yax ni ndax zikrillahi tatma'innul qulub wallahi alam yax nii ndax jotul alam yax nii moom la yàlla laaj ma yéen ndax jotul nag ñu ne ko li lazina amanu an taxsha qulubuhum li zikrillahi wa nazala min al xaq ndax jotul nak ci ñi gëm yàlla seen xol yi toroxlu ci tudd yàlla ak li wàcc ñom ci alquran xam nga xam nga toujours limay wax rek yàlla dafay dafa yàlla dafa mous xam na suma ko waxe ñi xamul dinañ ma reetaan dañuy waay sa waay yàlla ngay wax dafa mous wa yàlla kay ñëpp xam na yàlla passé na mous mais deug deug lay laaj way ñi nit ñom xam nañ limay wax deug lay laaj wa ndaysan yàlla dafa mous dafa xam ni su waxe lool bu suba di gis ben way taxaw ko ne la non ذكر موي القران يا لي ديدت وما نزل من الحق أجل ما واتي يوم نيوم سي القران كون ذكر بي مي واخ القران لا اله الا الله الله الله الم يحني نخجتل للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا ياكلوا كل ذين اوتوا الكتاب من قبل ني باجا مل نيغا خامتني سي جوخنا لين تيري لو جيتو مو مو قلوبهم سين خوليا لوتاخ سين خولي وو باسكو دونو ذكر yu bari ci ñoom yàlla mu leen ay faasex la mu mujj nekk ay faasixoon la ñu. daanaka ci yàlla mosal. parce que pourquoi parce que du ñu zikr loolu la yàlla wax alam yax nii ndax jotul ci jullit yi nag ñu seen xol yi toroxlu toroxlu ci tudd yàlla. mag ni nga gis mu toog ci jàkka ji naan laa ilaha illa allah ba rangoo ñu sotti ko xol bi toroxlu na ci tudd yàlla. waaye waaye sëñ bi lii ngir yàlla lii leerul. ah kay leer nañ leer léegi am waaju yeewoo yeewu joo xam ne day dikk fay bëgg a fexe man manee la la labee la ba génnee la ci yooyu te du la jox dara nasaxal sa diine yàq ko purir ko dindi racines yi xas ko garab gi dee déjjati reen bi déjjati reen bi waa la ko wax te ku ci sax ci bañ di tudd yàlla di zikr ci jamono ji ñu toll mhm. quatre vingt pour cent bala ngaa génn àddina sa iman dem yal na ci yàlla musal man maa la wax loolu de yal na ci yàlla chaay way way way seigne bi man maa la wax loolu njaga motax yalla ni la fa xasat xulubuhum wallaahi seen xol yow mujj wow ñu mujj ñom dañuy mujj nek ay faasixoon mhm. ay fasikh la ñu mujj nek parce que tout simplement duñu zikr donc kon c'est important moy mhm. bi nga xamni moy musique bi nga xamni moy mooy dundal xol mhm. zikr bu la nexé kon nga tuddee ko musique bi dundal xol waye voix lay doon du nek instrument ça ne veut pas dire que ne instrument toujours aussi fay lor mën na bañ a araam mais mën na baña am njëriñ bu fekkee dafa yem ci trois cent quatre cent trente deux hertz. mën na bañ a xaraam mais mën na bañ a am euh, am njëriñ tamit. voilà. voilà du lor du du du gaañ voilà man na nekk loo xam boo ko dégloo mu neex te du am benn lor. 432 hertz la xam nga dañuy wax ni alaaji jabare euh, Samba jabare ko waaw Samba ah, seet see alaaji Mansour mhm. mu toog ñëw xalam gi ñu ne alaaji Mansour ni ko Samba juel ma déglu. mu jël kora bi joué ben note xalam gi bi mu joué mu déglu ko ba egal mu ne ah yuxruju hayy min al mayit wallahi wa yuxruju mayit min al hayy wallahi ndax we bi dafa dé ah der bi composé ah dafa dé dee ki fil bi bant bi bant bi dafa dé fil gi nga xamni mom moy mom mom mom ngay mom lañu dor dafa dee dafa dee. ci lu dee te te ci lu dee. deru mbëtt bi ñu deru mbëtt bi ñu ëmbee. Euh, euh, gamb bi gamb bi gamb bi mbëtt ma dee na. gamb bi ci boppam garab gi dee na. bant bi tiige bi génnee ci moom. def nii wow na ba dee na caas gi dee na wee wi koy wow sax lu dee na. te loolu lépp ci ci luy dund la jógee. ci mi ngi génnee waaye mu génnee ci ci luy dund la jógee waaye am na temps mu génnee ci son son nekk luy dund. moo tax mu ñu yox lu ne xay yi mi naan.

moo tax mu ne wastafzis man istataxta minhum bi sawtika waa jilib alayhim bi xaylika wa rajlika jaxasool ak ñoom si yàlla ni seytaane jaxasool ak ñoom woowal say say say nu ñu koy tuddee say orchestre ay soldaar say soldaar xam nga soldaar yi yor ñooñu mooy soldaar yi yor yi tëgg yu tëgg clair yu tëgg kii musique bi. Mhm. soldats yi nga xam ne bu ñu taxee di waar gi ñuy sonné quoi ta ta ta ta bu ñuy waajee attaque attaque waaw dëgg la voilà ah, ñooñu lay wax. yow Iblis daf ko am donc musique la ay soldaaru musique lañu. moo tax da ngay gis ci ci ci. en arme da koy gis ci arme bi. entreprise su musique. wallaay da ngay gis ne dafa bëri ay seytaane. Ah, waaw ndeysaan. ñuy dund ci monde musique dañ xam loolu. xam nañu environnement bu bëri seytaane la ay seytaane yu garaaw ay Rayen men ay jinne la boo xam ni la boo xam ci musique rek lay nekk. moom moom Ryan Man. Ryan Man rappeurs yi xam nañ ko Ryan Man veut dire pleuvoir tawkat mooy mooy ñi ngay gis ñuy sànni xaalis gis ay clip ay clip musique nga gis ñuy balancer xaalis ko sànni muy taw quoi pleuvoir de l'argent Ryan Man moo tax ko de Ryan pleuvoir mooy taw <laughs> boo ci duggee bu jaxasoog yow mën la apporter xaalis mais daf lay exiger ngay balancer xaalis ngay sànni xaalis. maa la ko wax di ko wasaare parce que am na yeneen objectif yu mu ci gis. mais dafa am ay jinne yoo xam ne dañuy liggéey ci musique spéciale chefu jinne bu mag bi nga xam ne mooy liggéey ci tëgg moo tudd Euterpe. Euterpe Euterpe kooku moom mooy inspirer les musiciens ku ñuy wax terpsichore. Mhm. moom mooy inspirer fecckat yi. nga ni fecckat yi terpsichore. kon jinne bi nga xam ni kon ñu am am na am na ku ñuy ku ñuy ku ñuy ku ñuy ku leen moo leen di excité ñuy fecc xam nga fecc kat day fecc parce que parce que bu xul di bëri. maa la ko mel ni ku am rab. mel ni ku am rab. <laughs> xul di am rab lu muy gis. booba instant boobu am lu ko dugg. <laughs> day décoller ci jaww ji day mën lu nekk. mais bu paree moom est ce que sax dina est ce lii man maa ko man <laughs> dina xaw a jaaxle man nan laa mën a fecc bii ma fecc nan laa ko mën a fecce Makeba doo xam kon li tax kon ba ak léegi. li gën a fecc moo yor musique terpsichore moo yor fecckat yi calliope moo yor poète yi. ay kilifay jinne yu mag lañu. façon fecc bu ne gën def alaaj. ala kulli ah. waa ji ma gisoon mu koy lim ci télé bi. <laughs> ndax xam nga ñaata espace ñaata at. waa laa génne na ay xeetu fecc yu bare bare bare. yu mu lay ci am na fi. caxagul loolu lim nga ko macha allah. waaye donc nga gis ni yooyu dafa am benn.

parce que musique démb yi boo koy déglu ak musique tey da gis ne daf lay moo la gën a mën a adoucir moo la gën a mën a stabiliser waaw moo tax jeunesse biy déglu musique tey wu dañuy xirtalu jaxasoo dañuy angoissé wu dañuy stressé dañuy mer moo tax ay schizophrène ni bare moo tax ay schizophrène yi bare mooy da ngay mer doo def dara sa xol bi tàng doo xam lu ko waral ngay xataraayu fii di wéq bool yi ba si nga xaw a da ngay da ngay jaxasoo da ngay xulli sa yi da ngay stressé tout temps sa xol bi day naqari day metti tout temps te doo xam lan la fekkoon ni xamoo ne 440 hertz yooyu moo ko waral téléphone yi moom lay sonné télévision yi moom la ñuy tàkkee objet yëpp moom la dañuy émettre 440 hertz moo tax nit ñi nekk ci benn angoisse benn angoisse boo xam ne xamuñu cause bi xamuñu source bi lan la ñëpp dañuy jaxasoo nerveux am angoisse perturbé wu doo nekk ñu dañ lay balancer avec des ondes sourdes des bruits sourds des ondes sourdes yoo xamante ni si daf lay tànqal te doo ko dégg daf lay tankal te de ko dégg. te doo ko ci yalla donc parce que silencieusement lay ñëw motax Jim sine la ne sont que des sentiments qui ne font que mentir gentiment recouvrant les deux cœurs d'un drap d'un drap blanc vous éloignant du monde des vivants le monde des vivants. Je me suis très souvent demandé le Seigneur m'a-t-il détesté le diable me disait t'inquiète pas t'as rien fait ton cœur c'est parfait Jim si Je wax suis de. je mm-hmm. ne yenn dit, yi dama naan man daal de daf ma bañ. Ne ne ne le diable me disait t'inquiète pas c'est mu non bul wax dara yow sa xol rafet de. dégg wax boobu dégg nga de yow daal ak yow nit daal tu xol bu rafet lay xool man sama xol rafet na du ma julli du ma ne sama xol rafet na kon man ne laa nga bëgg nga bëgg ne veux ci loolu yow tu ci loolu parce que seytaane moo ne ko inspirer. non sa xol rafet na yàlla xol lay ne sa xol na ne wax s'il te plaît rek man ñaan suivre loolu waaw je me suis très souvent demandé nga dégg ñiy wayu maanaam seytaane mooy wax c'est-à-dire yow booy dégg doo comprendre parce que ci benn métaphore la koy jàllale message boobu information boobu xam nga li yàlla wax ni waykat yi way wa suaraahu yatbaawuna raawuna alam tara anhum fi kulli waadin yahimuuna wa annahum yaquuluuna maa laa yafaluuna yahimuuna boobu moo ma intéressé mooy divaguer mhm. mooy da ngay wax mel ni ku divaguer ni ñu ko mën a waxee ci wolof mooy ku ku mel ku tàqali ko sa sago di wax rek di wax n'importe quoi ñu ne diw dafa lan. dafa wax am na am na terme waay. dafa dafa tës bët. dafa tës bët. waaw dafa tës bët. waaw da ngaa jékki-jékki rek di talalal li doon di wax rek n'importe quoi nga wax ko. ñun saa dafa mooy kuy divaguer. saa dafa mel ku tës bët. waaw jékki rek di wax noonu quoi man kay di wax lu kenn xamul lan la mu nee na loolu la wax ne waaykat yi loolu la ñuy def. nee na nag di wax ci ñoom loo xam ne nekkul ci ñoom ñuy wax nag loo xam ne nekkul ci ñoom. gis nga nag gëmuñu ko li ñuy wax. voilà moo tax moom ñoom ñoom saa dafa leen di arrivé looloo ko dal instant boobu moom Jibs looloo ko dal dafa divagué wax nak limuy dund deug deug deug ak limuy muy deug deug mais quand même ci ben métaphore. Uh-huh. ci ben métaphore. dafa sax dëgg ñu ko viens dans mes bras tu auras tout ce que tu voudras. xaaj njëkk xamna dañuy ma temps bi jeex na. day am suite quoi. mais loolu lii moom foog ñu parce que. fi nga toll ni ma ngi gis euh, ñi nek ci YouTube bi ñi ngi commenter bu baax a baax a baax Baraka baax. waaw barakallah dañuy viens dans mes bras tu auras tout ce que tu voudras. ouvre les yeux j'ai retiré le voile. jim so day wax loolu ñëwal ci samay loxo di nga am lépp lo bëgg seytaane mo la koy wax ubbil say bët dindi naa kiiraay li dégg nga wax boobu mooy lan xam nga lu tax loolu lu tax loolu waaw loolu mooy lii la gëmloo yàlla yonent bi alaxira yooyu nekkul dindi naa kiiraay boobu maintenant tu vois fekk gisoo da laa lëndëmal allahu akbar cheet gis nga baarakallahu alhamdu

moy méthode ak aspect yi seytaane utiliser. Uh-huh. kon kon nañ patienter parce que léegi sax dama demee base raay du parce que ay am ñoo xam ne ñu naan yonent histoire yonenti commencé ko commencé ko na ñew na ñëw na ñëw mais dina ñew nañ nañu topp tamit li nga xam ne xëy na ko dégloo ba nak nag dañu ah. xam li ñu mëna a jëriñoo yonent yi exactement parce que bo xamul nooy mucc ci seytaane mm-hmm. ak fi seytaane mëna a jaar pour yakal la yow doomu aadama bi même bo xamé yonenti yi mm-hmm. du la amul njëriñ effectivement effectivement ah, c'est important ah. donc quand nous dinañ ci ñew lolu ba mu ba mu ba mu yaatu mm-hmm. bu waxul it inshallah ci wax lu bare stratégie yi nga xam daf koy def ci adina ci nit société bi ci sa santé ci yépp dañ ci wax euh, bu ko nit xam ko dañu permettre ñu gor bu comme man sama bakkan damay dafa faible. Mhm. man mën naa di def lu bon waaye quand même dinaa comprendre. nooy xeex ba loolu sama xeexu bopp may dese léegi. Mhm. léegi nag kooku moom sama tëleeg bopp la. bu ñu jógee ñaan sëriñ si ñu ñaanal ñu yàlla yàlla may ñu kàttan bu ñu permettre ñu mën a sàmmonteeg suñu bakkan. Mhm. ba bañ a def lu bon. waaye ala kulli xaal méthode yi moom mën nga dem ba xam ko. xam seytaane taxu nga mucc ci. xam seytaane xam ni seytaane lii la taxul nga mucc ci mhm. parce que tamit sa faiblesse daf koy utiliser sa bëgg-bëgg bakkan daf koy utiliser sa bakkan daf ciy mhm. bëgg xaalis sa yooyu yëpp seytaane daf koy utiliser bu boobaa même bu la leeree ni seytaane da ngay ànd ak moom parce que yow yaa bëgg daraja mhm. yaa bëgg alal yaa bëgg nguur yaa bëgg nangam bu ko def mën nga ko topp xam nga li Seydi Hadji Malick doon wax naan مدى الدهر والايام وذنب حاسد والله مدى الدهر والايام وجسم عابد عابد مدى الدهر والايام وقلب شاكر شاكر والله اي مدى الدهر والايام وذنب حاسد على انني مملوك نفسي وشهوتي والله لول موم a <laughs> سما بكان لا توب نينا موم نينا موم سيدي حاج مالك Seydi Hadji Malick yëg naa ni man ndekete man àdduna rek laa topp sama bakkan rek laa topp mu boyal ma. boobu ñu ngi lay waxal Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu. <laughs> xam naa ne waxtu ko waxtu bi jeex na macha allah eh, foog doo mën a bañ a nuyu nag sa soppeeku eh, Al Hadj Oustaz Papa Anne. waaw waaw Oustaz Papa Anne. macha allah nit ku baax moom moom moom nee na moom. Eh, moom waxuma la gars yi ni ñu la soppe waaye sama nee na ak bëggam moom moroom moroom ñëpp. ala kulli haal Oustaz Papa Anne nit ku baax. te moom nag du ñu yàgg nag moom El Hadj Papa Makumba Anne. non ala kulli nit ku baax a baax ku laab xol la ku laab biir la ku yàlla dimbali la nee naa nit ku yàlla dimbali mooy loolu nit ku yàlla dimbali nekkul ku jox nguur wala pouvoir parce que fi jafe mooy xol bu laab defar sa xol mooy loolu waaye am na ñoo xam ne na leen yombal na leen amuñu ci kañaan dara mhm. te lu nit am dañoo bëgg mu yokk wallaahi ñoom la nga am ñoom mhm. ñoom dañuy toog di ñaan kii li mu am yàlla yokk mhm. waaye ko sëñ bi koo koy baax waay loolu leen baax yàlla ñu ko yàlla defal ñun ñëpp ñu ngi koy nuyu di koy ziar bu baax effectivement ak euh, yeneen oustaz yëpp yëpp nag parce que tamit bu dee fii moom ñi fi nekk moom ay wàll yoo ki sëriñ laa gis ñoo nekk <laughs> parce que gars yi koo ci gis a ngay defee ne ndeysaan kii rek wala ci daara ji fii ndeysaan moom yàlla def loolu rek dajale fi ay gars yu baax yu laabiir yu bëggante yu soppante vraiment c'est un plaisir moo tax léeg-léeg bu may ñëw ci yenn kii damay kontaan parce que da ngay gis ni plaisir la bëggante bi ñoom Cheikh Ahmed Tidiane ah ñoom Haji Malick Haji Malick Dieng moom problème moom mooy loolu mooy jéngi rek. <laughs> yooyu mooy problème am ndeysaan baarakallaahu comme may bañ a jëlaat temps wallaay ngi noonu euh, sa sa doom ji ci Angleterre tamit ñu nuyu ko mu ngi lay bàyyi xel ak euh, soxna euh, ak soxna soxna. Eh, soxna jeng moo itam ma nga fële ca France. Ah, ah, bëri nga ay ak sa eh, mbokk yi nekk ci Amérique. Ah. wallaay ndeysaan moom man la woon te déggul te Aïcha. ak Yaama. wax nga dëgg Aïcha moom déggul déggul olof. ah ndeysaan waaw xam naa sax mais professeur xam naa dina mën a waxtaan ak yow. incha allah incha allah eh, ñu ñu nuyu leen bu baax a baax ndax dañ lay bàyyi xel bu baax a baax. Chérif Salma Salma Aydara moom tamit. Chérif rakk ci Chérif Almamin Aydara. incha allah bii ànd ak tafsir Abdourahmane Gaye incha allah moom da lay bàyyi xel bu baax a baax ma nga ca bitim réew. waaye daf lay daf lay bàyyi xel bu baax a baax a baax. ñun ñëpp incha allah daf lay bàyyi xel bu baax a baax. ñun daal ñu ñu ziar la ñun ñëpp. bégg leen bu baax a baax fa tabarakallahu ak sama kamara kamara yeeg waddeen yeeg ñëpp rek macha allah kon xam naa ni waxtu wi jeex na tàkk te man suba damay xiisiwaat ci fajar gi. war a def xalima